d'abord tiis wi di li xew ci Louga soxna soos ñàkk bakkanam ci anam googu nga xam ñu bëree ko ñaawlu donte nag ay mission yónni nañu leen ngir ñu xool mbir moom liñ bën bi ko xool lan moo ci am lu ci amul bi nga ko yëgee nga koy topp ba fi ñu ci toll nu mu def. di ko métitlu di ko naqarlu euh, fi métit commencé ba fi mu yem dinaa ci profité léegi sax waxaale ci. benn hôpital bu ñuy tuddee principal lu mel noonu xaw na fa xew ndax yónnee naa fa benn malaat boo xamante ni ci ndigg li la yaram yu commencé lakk ba ci suuf te muy jigéen eh, problème mu prise en charge bu génn ak bu génnul wala rompre nañ contrat bi wala rompruñ ko. Eh, bu ñu deful woon attention bu ñu ci deful woon yenn taxaw yi mën na jur leneen mais alhamdulilah mais lii tey dafa nekk loo xamante ni ku ko joxoñul li ngay woote ci sa bopp ci wàllu etre humain gëm ku gëm ak foo mënti féete jar nañu seetaat ko koo xamante ni te buñ ma jëm buñ ma buñ ma indil waxu yàlla mooy rey hmm. buñ ma indil waxu àpp ma jotoon al wiqaayatu xayrun min al ilaaj la arab di wax xoddi ko ca ba nga lakk léegul sëñ bi eh, lii ñaaw na trop ci hôpital boo xamante ni su ma juumul ci document yi ma am jiili Mbay moo ko financé woon te état waroon a taxaw def ko kon bu ko Jili financé yal na yàlla woyofal suuf ci koom yokk ko leer fa mu nekk moom Jili Mbay bu ñu demee ba jamono yi ñu toll et c'est pas la première fois ñu ciy wax ay yu mel noonu di fa xew am na ay bébé yu may dégg ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais xoolal tey ndaw su toll ci ay trente cinq ans quarante ans di góorlu jàng am baccalauréat am léppam même bu jàngul woon sax tey dem ëmb ñu waroon ko mën a sauver ñu seetaan ba lii am responsabilité état mu ngi ci biir waaye mm. xam lu tax mu ci biir. tey booy seet ampleur bi mu am sax moo tax ñu réagir mais bu fekkoon ni ñoom jël nañ seen responsabilité guddi gi mu xewe balaa muy bëccëg wala bëccëg bi mu xewe balaa muy guddi kon doon nañ taxaw tey régler ko ba dañ naan loola de ñu ngi koy wax tey waaye régler nañ ko démb waaye dañu toog ba nit ñi wax ci médecin après la mort la topp xaar jaan ba dem nga topp ca watidu est-ce que lii jaadu na te gis nga état boo gis ak chef d'état boo gis li ñu ko sant yomb na mooy askan wi nga yore bu ñu xiifee nañu lekk bu ñu feebaree nañu faju yeneen yi ci des yëpp ay complément la waaye réew moo gis mu développé mooy réew moo xamante ni bu xiif amee ba balaa ngay xiif nga mën a gis loo jëfandikoo boo tawatee mën a dem faju te loolu wax dëgg yàlla ala yi ñuy caaxar caaxar caaxar caaxar caaxaree nii di ko néewuñu sax fi ñu ko def waruñu ko faa def waaye tey lii farata ji waroon a def mooy tey toppatoo suñu hôpitaux yi tey waratuñoo gis jigéen di tëdd ci saret ñu remplacer ko ambulance te ñu ngeeg seeni ay oto yoo xamante ni ça ay deux cent millions cent millions cent cinquante millions ay oto yu jar un milliard di wut ay bateau di bànneexu mais loolu lu tere tey maa ngi dégg benn waay di di di di attaqué Guy Marius naan oto bu ñu ko jëndal ci ay xawma ñaata million waroon na ko xaaj bon jënd oto 4 million mais xanaa Guy Marius Sagna la gis na wax borom oto 100 milliards un milliard yi lu tere mu jënd oto boo xamante ni na doon sax 100 millions 900 et quelques millions yi mu def ko ci hôpitaux yi nga xamante ni tey jii lu leen neex ñu ngi koy teg bakkanu doomu aadama yi ñuy dee. lii sanction rek waru ci yem waaye Sénégal yépp war a jóg à travers lii xew ci ndaw si ñu régler problème mu santé ndax lu ko gën a xóot gën ko metti mu ngi xew ci biir te ñu ngi koy bàyyi di ko nës nësal muy dem ndaw si dafa feeñ la tey rek mais ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax fa ba fa naqar yem di ko méttitlu di condamné nag ñi nga xamante ni ñoo yor réew mi moo xam ministre de la santé la moo xam ka ko yiluf la wala ku mënti doon responsabilité bi génnuñu ci il est temps nag Sénégal génn ci situation yi mu nekk xiif di wër di taxawaalu feebar di wër di dee ci àll bi wala sax nga feebar ñu war la mën a faj mais imaginez kenn kuy accoucher nga war ko accompagner maa ngi dégg bërki démb ci 2S rangoñ yëpp di tuuru ñoo xamante ni tey dañuy ñëw ànd ak seen jàngoro ñu leen di laaj xaalis balaa ñu leen di balaa ñu leen di. mais mais imam loolu ci yoonu ministère de la santé ay professionnels yoo xam ne dañ leen dénk liggéey ñu war a def liggéey boobu kiiwul ah bu ñuy sanctionné kay foofu la ñu a tàmbalee xool kii lañ ko dénk liggéey mu war koo def defu ko loolu lu ci yoonu ministère de la santé wala da bëgg politique rek moo tax nga ko ciy tudd moom Abdoulaye Diouf Sarr. su ma juumul nëgë ni daaw ñu ngi doon wax problème mu benn waay joo xamante ni jël nañ ko dugal ko ci biir wér gi à santé ñu naan day opéré rek day def lépp dëgg la wala de fan nan la def ba dugg ci nan la def ba nekk fonctionnaire te jàng ko xamu ko nga dem ci takk der mu am ci léegi lay soog a xew nii mais jamono yi weesu amul woon li may wax am na wala amul responsabilité boobu responsabilité kan la est-ce que tey bu ñu toogoon tey jii ñu xool ni tey nit ki génn na àdduna mais tey biir na ma ni man ñoom ñoom ci seen bopp bu ñu ko defoon seen doom. ñu dem defi autopsie médecin ba ko doon euh, jéem a rewli wala sage-femme ba wala ba ko doon toppatoo ci kaso lay dee parce que dañu considérer ki mu dal jàmbur la mais nañ ci sóor seen diggante ak seen borom sama waay li nga wax du wax xam nga lan mooy wax responsabilité bi état la bakkan du fo bakkan yàlla daf ko fonk ñoom ñoo taxaw laaj ne ñu jox leen ñu mën nañu ñu jox leen. kon ñay liggéey ci hôpital bi te xëy na ndogal bii dal leen amuñ ci benn responsabilité. xëy na ndogal xëy na ndogal ndogal boo gis fekk na ca loxo boroom parce que boo jëloon say matuwaay bu ñu demee ba xam ni jël nga say matuwaay na mu ware leneen lu ca am ni ñoo fi ndogal di dal duñ leen ndox parce que dañuy xam ni ndogal la mais ndaw si lu tax mu siiw lu tax mu bari coow.